salaamaaleykum gars yi nuyu naa leen daleen ak jaamu ci Sen Sport 221 transfert la ñuy doree ak Nicolas Jackson moom international sénégalais bi jamono bi Chelsea football club bëgg na ko kayiti xibaar bi mu ngi xam la ne ki nga xam ne mooy Mauricio Pochettino dal dina koy identifier boole ko ci euh, joueur yi nga xam ne daf leen yéene ngir signé leen ak la boobule voilà moom nag njëgam ñoo ngi koy xeema ci 30 millions de livres bu Chelsea góorgóorloo mën nañ ci teg loxo xam ngeen ne fan yi rek déggoon ngeen Diomaye Camara doon xam la ne moom kii di Nicolas Jackson am na chance bu baree bari ngir génn Villarreal te moom mooy ki koy représenté buñ sukkandikoo rek ci kayiti xibaar bi di Standard Sport mu ngi xam le ne bokkali na bokk na ci liste bi nga xamante ne Chelsea jamono bi ñu ngi càmbar ngir dégg nga maam jënd ci ay joueurs njëg googu nag ñu ngi koy xayma ci booru 35 millions d' euros moom kii di Nicolas Jackson voilà kayit xibaar mu ngi wéy di xam la ne Red Bull Leipzig AC Milan ak yeneen club ci English Premier League bi ñoom it ñoo ngi koy teggat di ko bàyyi xel moom kii di Nicolas Jackson jamono bi nag mu ngi ak sélection nationale bi ñu gis nag mu jeexal saison bi ci anam gu doy waar anam gu jéggi dayo bokk marqué ay bit yu bari ci juróom-ñetti match yi nga xamante ne moom la mujjee football ak clubam boobu la di Villarreal dinañu wéy di topp mbir moom jamono bi seen joueur bi nga xamante ne mooy Kai Havertz nga xam ne ay jamono doon ngeen dégg ne ñii di Real dañu bëggoon ñii di Real dañ cee génn ba set wecc jamono bii nag ñii di Arsenal ñoo ci nekk li ko waral nag nee nañu jamono bi ñii di Chelsea dañu doon laaj koppar yu toll ci quatre-vingt jàpp soixante-quinze millions d'euros ñii di waa ñii di waa Real Madrid waaye ñoom Real Madrid ñoom bàyyiwuñu xel mukk def ci li nga xamanteni moy mooy njëg gu ni toll moo tax ñoom génn nañ ci dal ñom paré wuñu sax fay lu toll ci 50 millions de livres kon Chelsea lolu ñuy laaj ñom euh, ñi di Real xalaatuñu ko tek ci taabal ji moo tax ñu dal di bay kon waxatuñu waxe kay Haver léegi nak ñom wa Arsenal ñom bëgg nañu ko Arsenal fim leni kon ñom ñoo ci nekk Arsenal ak kii di Mikel Arteta gëna bi ñu kalfi ci Ligue des Champions bëgg nañu renforcer li nga xamne mo seen équipe bi ngir déwén ñu gëna mëna def saison bu gëna baax Chelsea nak mën nañu laaj 75 millions de livres japp 70 millions d'euros Euh, de livre kon ci ki nga xamante ni voilà moom la ñuy wax dégg nga kii di euh, Kay Havertz Arsenal yemuñ ci waaye ñu ngi ci ki nga xam ne tam mooy Declan Rice bi nga xam ne moom fan yi rek la gagné li nga xam ne mooy Conference League ak West Ham United te ñu bari seentu ne dina fa jógee moom it ñi di waa Arsenal ñu ngi ci mbiram ki nga xamante ne mooy Mason Mount moom itam joueur Chelsea football club la jamono bii Manchester United dal dinañu def li nga xam ne mooy seen offre njëkk waaye Chelsea dañ ko reje euh, dañ ko euh, rejeté ci saa si voilà rejet nañ ko ndax dak li ko waral nee nañu euh, ñi nga xamante ñoo di Chelsea soixante dix millions de livres la ñuy laaj te Manchester quarante millions de livres moom la ñu teg ci taabal ji léegi nag quarante millions de livres yooyu la Chelsea ñoom dañu ko xeeb moo taxit ñu dal di koy rejet ci saa si maanaam loolu daal dañ ko xeeb moo tax fi mu ne ni kon jamono bii dañoo am pour defaat beneen offre ñu waa Manchester bu ñu ko bëggee nee ñu nag amul benn problème ci diggante jour bi ci boppam ak Manchester United foofu moom déggoo nañu xëy na ci wàllum salaire ak yi ci aju mu des nag ci diggante ñaari club yi Manchester nag ñoom séentu nañu kii di euh, euh, Mason Mount du prolongé ndax Chelsea loolu mooy seen yéene moo prolongé des foofu waaye ku ne gis na saison bi ñu génn moom kii di Maïs Mawone jafe-jafe yu bari la dund ak Chelsea moo tax lànk na ne du prolonger contrat bu kon mbër mbër moomu dañu dinañu wéy di ko topp Man United 40 millions de livres yi mu njëkk dugal Chelsea dañu ko delloo ne dañu koo xeeb amaana dañu dellusiwaat ak dole Nicolo Barella nek jour Inter de Milan mom jamono bi Newcastle United dal nañu koy songu jamono bi dal nañ def de nga am lu tollu ci 50 millions de livres ngir signé ko ñom wa Newcastle bi nga xam ne ñoom dañuy dem ci Ligue des Champions ba fan yi ñu ngi def euh, de nga am euh, ay effort ngir bëgg renforcer sen équipe bi voilà ki di Nicolo Barella bi nga xam ne ñu bari ràññee nañ ko Inter de Milan rawatina saison bi ñu genn voilà mom nak jamono bi ñu ngi sentu kon mu signé ji fofu le délai télégraphe mo dal di biral xibaar bu nu mel ñi nga xam tam James Madison bu Leicester City moom itam di Newcastle bëgg nañu ko signé bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar yi. Lucas Hernandez na Bayern Munich moom dafa dal di wax ni ñii di waa Bayern dafa bëgg dem foofu la ca Paris Saint-Germain Paris dañu koo bëgg moom kii di Nicolas euh, ki nga xam ne mooy Lucas Hernandez euh, waaye Lucas Hernandez boobu nga xam ne dafa bëgg a dem kon ca Paris Saint-Germain jamono bi gis na ne am na fa place ndax bu fa demee kat dina dal di mën a jël place ki nga xam ne mooy Sergio Ramos ndax Ramos xam ngeen ne kat dafa jóge foofu la di PSG te ki nga xamante ni nag mooy Hernandez daal moom xëy na bëgg na dégg nga maam ñibbi dëkkam muy France googu nga xam ne fa la dëkk voilà jamono bi fa la bëgg dem si ñi te nee nañu xamal na ko ñii di waa Bayern Munich